sa démb ngeen nekkoon fii tey ngeen ñëwaat ak beneen dispositif andi seen matériel tey euh, lan ngeen ñu mën wax par rapport ak euh, li ngeen di mettre en œuvre pour euh, jéem a génne reptile boobu. voilà salaamaaleykum gannaaw bi ñu leen nuyoo ñoo ngi fii ñëwoon nañ fi démb alors gisee ak madame le maire Aïda Sow Diawara bon waxtaan na préfet waxtaan nañ ak kilifa yi ñuy jógee parc an léegi man Fallou Gueye laa tudd le responsable du reptilarium. li ñu fi indi daal mooy bëgg askan wi féex ñu génne mala bi mu wér ànd ak jàmmam kenn bañ koo rey mu continuer vie am ñu yóbbu ko parkaan mu continuer vie foofu nit ñi it soulagé am jàmm loolu moo ñu fi di attrape bi lañ bëgg a commencé nii nag actuellement. mais vu la situation yow nan nga dé mën a décrire déjà li fi nekk gisuñu ko mais bon xam naa ak expérience bi nga am war nga ñu man a wax dara. bon actuellement gisaguñ ko euh, déggaguma aussi chiffre bi euh, mais de toutes les façons dañ koy piéger dañ koy naxante ak moom. parce que motax ñu jënd ganar yi ni dañ koy attaché à corde dugal ko ci biir patienter nak il faut du temps patienter mu and ak dalam ba génn buñ ko gisé nak lañuy confronter ak mom inshallah allah yobbu ko ko mu continuer vie am. ok merci beaucoup. Merci.

Mindu. Sibir doo gisee. waaye doo xaar mu taal tal mu taal projecteur. Sibir doo gisee. waaye doo gisee dara affaire bi. ma teg moom mooy ñëw bu fekkee ni. ñool kii bu ko xëy na ak cinquante cinquante mille. mun nga demal ko fekk. mu ne bala mu déplacé wu damay xaar est-ce que moom coincé wu. si pont ba la nekk. waaw dafa coincé bu coincé woon dina déplacé wu nga di ko dégg fii kaw suba fee mais benn place nga koy dégg boobu léegi. ah benn mato yi. kay kii mato bi. am na booy daj. ba jomb àll jomb ma